la ko wax man maa la koy wax man mi fii gan naar yaa ngi nii association baa ngi nii jàppale leen leen Sénégal jëm ci kanam ndax du ñëpp ñoo bokk ndey ak baay waaye ku nekk nag ku war sa moome te ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fa borom donc ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp monsieur le maire di sant mon ami et frère di euh, di sant ñi fi nekk ñëpp waaye nag monsieur le maire kii yóbbante la ba nga xamante ni ci mën nga jóge jëm ci le maire ci boppam nanga fatali ko askan wi nanga xol li fi ne nanga xamni soxla nañ la guddé ko ci nanga xamni njabot soxla nañ la ak waxtu ku ne te nanga xamni nak yow ya rek lañuy xaar pour ko jappalé ci lepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وسلم على مشي لمير مع دلقاسيون كامل ليه وذا نحيي لا نحيي به روسنا بها عوايدنا آه، لا يغدو علينا باللي عاد ياسر غادي علينا وذاك ميت يحيي لنا نتباركوا مع بيلي عاد لا يغدو علينا تركتنا ولي عاد لا يخسروا بها وسنة مباركينو كان باطل يحيى لنا لي يحيي لنا ولي لا روسنا مادة فقرية مهم على فيها لا لا آه، لا ديرها مهم فيها لا ما شاء الله عوايدها ونحن عوايدنا عادوا يغدوا علينا بياسر من الشيء وسنا عدنا متباركين معاهم صيفة بين لأن كنا متعاونين على عوايدنا كاملة باغي نحنا كامل بيضان في كومين روسبيتو وكومينات كامل اللي تناغرو هنا منا ضايرين نحيو روسنا ونركبو روسنا ونركبو فحامتنا الاول شو شوخر منا ضايرين بين البيضان ان شاء الله آه، حياتهم زينة وحياتهم مطبوعة وحياتهم كبيرة وسنة لا هو الضايرين نركبو فحامتنا به اللي ديوان حد يعرفهم يعرفهم بالطبيعة ويعرفهم بالمروة جاكو الوسنة ما نقدو كون نهار اليوم آه، نواصلوا سرمنية في الناس كامل تشينا وراني مولي شاكرة الناس كامل اللي حاورتنا هنا آه، كيف كمنت كما تتناقر هنا ترانا شاكرين حتى باللي آه، انسان تقيم من آه، يمينه وجاك ما عندك شيء تقولوا له تواصل جاجة في البباح ولا في مال دنيو دي لين زيار دي لين اقو باح لب لو خمانتني ودفنا تبرك توالو كتير ndax daanaka nit bu culture am dañee ci moom dara desatul ci moom loolu moo tax nit dafa war a sàmm culture xam moom mooy kan ci ci réew mi ndax ku si nekk rek. tay si tay yaa ngi toppatoo sa culture euh, pour ëllëg mu bañ la réer loolu kese lu ñuy xeex pour euh, maanaam euh, nit na di yëngu toujours si culture am ndax moom mooy xam kan ndax ku bàyyee sa ànd ànd boo dem fekk fa borom mi ni toog maa ngi nuyu monsieur le président Juddu maa ngi koy bu baax monsieur le président de jeune maa ngi koy nuyu maa ngi koy nuyu maa ngi leen baax a baax macha allah yal na leen yàlla may euh, wér yàlla may leen kattan nga xam heure bu nekk bu nu organiser fii dara ñun ñun ñëpp euh, ñu mën si daje. ñun jigéenu naar yi tamit euh, jàppoo nañu nu nekk benn jàppoo ngir jàppale sunu góor ñi. pour ci wàllu culture ndax dara ñorul lu dul suñu culture te nu culture rek moo noo ñor loolu kese la waaye du leneen ñun nag ak yéen démb la woon te tey dikkul dara mënu nu tàqalee yéen wala boo mënu nu tàqale noo bokk ndey noo loo xamante ni rek lu rafet la ak lu kii la euh, lu lu lu ñuy organiser la duñu bëgg ngeen ndax macha allah seen teewaay dafay rafet euh, lool ci ñun maa ngi jërëm ñëpp nag di sant ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di ziar sunu monsieur Ahmadou Bakay maa bu baax di ko ziar macha allah yal nu yàlla may euh, kattan a dajewaat borom subhanahu wa taala ni ñu kattanal man di dem ak dikk boobu ba tey ba taxawal lu nii du suñu njàmbaar nag du xam-xam. Bousou nou man man, bousou nou am am, dogo lou yal lala. Dogo lou yal lala. Lou mout soumou, mou agne, yal lala. Kon dousou chen di sepok. Minou yon nifite ou nyep. Magnda ou, gor ak di gen. Sante njou ge founen. Delegasyon yi, mokte yi koubdounen lenen. Njou ge djamak gisnen lenen. ñi jóge ñiit ñu jóge ronk ñu jóge dagana ak ñi nga xam ni ñoo fi teewal mairie bi sant nañ ñëpp gis nañ ñëpp di nuyu suñu mbokk moom ci jataay bi la bokk ndax deret ak der moo ko ci boole alxaaj Mansour Ndiaye nuyu nañ la jox la ñu ngi gërëm képp ku fi teew foo mën a jóge rek gërëm nañ la amuñu sa fay yàlla mi nga xam ni moo yar yal na leen yàlla fay ci seen teewaay ndax jamono ji xat na xat goo xam ne koo woo ci sa soxla mu bàyyi yitteem ñëw amoo ngërëmam kon yal leen yàlla fay yal na leen yàlla fay kon nag mu mel na union bi nga xam ni yàlla def na ñu taxawal ko fii muy union pour la culture et le développement bu commune bu Ross Béthio te naar yi taxawal ko dara taxul lu dul li mbokk yi wax léegi daf ñu wér ni nit bu ñàkkee cosaanam amatul maqaama te ku amatul maqaama sa dund ñàkk solo te ku sa dund ñàkk solo sa dee gën sa dund yàlla ñu ko yàlla yéex a defal moo tax ñu ni dañuy delloo sa suñu cosaan cosaanu naar bu cosaan bu doye bi cosaanu naar bu cosaan bu nit du wane loolu moo tax ñu am fierté bu mat sëkk ngir wane suñu cosaan ngir yëkkati ko ci kaw ndax la mag ñi defoon ba am lu ñu am ci way ñu juddu tey bu ñu bëggee am wayu mag ñi dañuy jaar fi mag ñi jaar moo tax ñu delloo battu ca ndaa la ngir dundal suñu cosaan naar xam nañ ko ci jom xam nañ ko ci njàmbaar xam nañ ko ci fulla xam nañ ko ci kersa yii ma tudd nag bu dalee bu dañee ci nit kon nit bi soxlootul ñu koy tudde nit moog bàyyi ma ñooy yem euh, euh, fii rumbaatin nekku fi wulaatu mbaarak nekku fi njor na nekku fi hër abdalla nekku fi naar yi nekk ci commune bu Ross Béthio te bëgg suqali seen cosaan ñoo fi nekk kon rumbaatin bi fàtte na la mu doon ngir bëgg bi mu bëgg a bokk ci joge njor la ndax ñun yàlla dafa def naar yu nekk ci Ross Béthio lu jiitu lii benn bopp lañu kenn mënu ñoo xañ boo ñëwee rumbaatin fekk fi koo xam ne ay nijaayam ñu ngi wulaatu nga dem wulaatu mbaarak fekk koo xam ne ay baayam ñu ngi rumbaatin nga dem njor na fekk ñoo xam ne seen i jarbaat ñu ngi fii kazalika waa kër Abdallah loolu moo tax mbokk mi laaj ma léegi ni ma xanaa bi ngeen di lii sonn ngeen ma ne leen sonn ñu ci benn coono ndax benn kër ku nekk dafa xëy rek ak wuti ñooñu dajalewaat leen dana yomb yàlla def na naar yi nekk ci commune bu Ross Béthio yëpp dajale nañu dajoo nañu nekk benn bopp te fasatuñu yéene xar ñaar ah loolu nag ñëpp ci jàpp góor yeeg jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi loolu taxul ñu xeeb benn askan taxul itam ñu woote boddeeku li ñuy bëgg a wax mooy ànd lañu am te ànd bu waay wàcc boo demee ci beneen ànd fekk fa borom moo tax ñu dellu ci suñu ànd toog si fonk suñu cosaan fonk suñu làkk fonk suñu li ñu doon mais taxul ñu xeeb kenn taxul ñu boddi kenn nit ku nekk li la yàlla sédd dañ koy ñun ay naar lañu ci réew lii lañu bokk duñu ay Mauritaniens duñu ay Maliens ay Sénégalais lañu pur et dur suñu maam yi am na ñoo xam ne participé nañu ci première guerre loolu yàgg na fii ci gàtt gi am na ñoo xam ne seeni maam des nañu ca première guerre mondiale loolu ku ko def ci réew war a ni ci réew ma nga bokk kon war nga taxaw taxawaayu ku bokk ca réew ma lépp lu réew ma laaj nga def ko waaye yow it lépp lu la réew ma war loolu defal la ndax alhamdulilah suñu doom yi jàng nañu yàlla def na am nañu am am am nañu xam-xam am nañu tekk am nañu teey kon lu des mooy ñu nekk benn ngir fu ñëpp di sëddu yeneen askan ñëpp di fa sëddu ñu sëddu ko quartier bii ñu toog quartier bii ñu toog ki ko sos naar la fii la bokk quartier bi ñu toog courant bii ñu tàkk ci ku fi indi naar la ci ñun la bokk kon ñu ngi def ci réew mi li ñu war a def kon war nañu feeñal suñu bopp yëg ci suñu bokk ci kaw te xam ni fii la ñu bokk du ñu séddoo feneen fii la ñuy séddoo lii ñu sumb nag wommatuñu nit ñi jëmale leen ci benn parti kon politique taxu koo jot wommatuñu nit ñi jëmale leen pour ñu nekk taalibe benn sëriñ kon woote ay taalibe taxu ñoo jot culture ak développement moo ñu ñor culture ak développement moo ñu ñor kenn ku nekk ci ñun am nga foo pare kenn ku nekk ci ñun am nga foo

bu ñu nekkee benn soxla bu ñu am faj ko bu ñu nekkee benn lu ñu song daan ko ndax arab moo wax ni al ittihaadu quwwa al ittihaadu quwwa l'union fait la force booloo mooy doole loolu moo tax mbokk yi fi teew ku nekk a dugal ci sa xel ni suñu daje bii askan bi la ñu bëgg a ñu yëkkati seen cosaan askan bi la ñu bëgg ñu nekk benn ñu xam ne ay naar lañu ñu xam ne ay naar lañu ci réew mi lañu bokk làqatuñu boo demee tey tey ca kaso bu buñ la dee limal naar ya fa nekk boo nee benn balaa ngeen ni ñaar di nga boo demee tribunal buñ la dee limal naar ya fa am problème boo dee compté boo nee benn balaa ngeen ni ñaar di nga bu ñu ni woon wuub sàccee kenn du wax ne ab naar la wala boog bu nee benn boo nee ñaar balaa ngaa ñu ni ta di nga kon macha allah def nañu li ñu war def ci réew mi mel nañu lu ñu war a mel ci réew mi jàng nañu li ñu war jàng ci réew mi kon nag na ñëpp xam ni ci réew mi la ñu bokk na ñëpp xam ni fii la ñuy séddoo na ñëpp xam ne naar yi benn bopp lañu kenn mënuñoo far ñaar lii ñu bëgg fii nag moom la ñu bëgg ci commune bu Jama bëgg ko ci commune bu Ñiig bëgg ko ci yeneen communes yi nekk ci Sénégal ba naar yëpp xëy nekk ci Sénégal benn bopp. نار boo لال ca njàmbur mook naar ba ngay laal ca maatam ñooy bokk ndey ñooy bokk baay bu ko ñëpp lépp jëm kanam سلم عليكم الفطان كاملين ومرحب زبجا من كل بلد زبجا من جامع وزبجا من النيت وزبجا من دقانة وزبجا من بجرو مسلمين إليهم آية السلام ونقول لهم أن نهارنا زر رايدين بين أودو تلاميذ المرابط رايدين بين نحيوا تراثنا رايدين بين شي واحد رايدين بين نشتركوا أم ونشتركوا بو كيف كانوا جدودنا وباتنا وأمامنا ذاك اللي جابوا يامس به اللي هما كانوا واحد ما قد حد حقرهم ما قد حد زوزاهم ما قد أرضهم بالخاسر إذا نحن اليوم يا الله رجل عصرنا ما أنا مستحيين نلبسوا درارينا ولا أنا مستحيين نلبسوا ملاحفنا ولانا مستحيل نقول ان بظالم ونتكلموا بالحسانيه به اللي شنو نحن من هذا الوطن نحن مانا موريتانيين ولانا ماليين حقوقنا ندورهم ذا الوطن تركبنا دراو وعندنا الماده وعندنا الماعيه اذا شنو موجب نقول ورا الناس كامله شنو موجب نقول خايفين خايفين من الناس طامعين من الناس الناس الاخرى لا الناس كيفنا اللي قراو قريناه اللي عندهم عندنا شواسا ما نتبدلوا لقدام ميزان معرضة بالمروة معرضة بالشجاعة معرضة بالسخاء كانوا يقولوا هرب جاك البيزاني ما كانوا يقولوا هرب جاك حد اخر شنو موجبة تراو زيد كان فينا ما قط بيزاني هرب الاولاد ترجع للورا شنو موجب اليوم الناس كاملة نودع كل ماشي كل غرين قطو كل غرين قطو طرحوا عدد زكل غرينات ونشتغلوا جناح واحد احنا كانوا نقولوا بوم من نورو نورو في كل بيتو ونورو في البلديات الاخرين نقولوا السنغال كاملين بيزار شي واحد ما يمس حد بيزار في ماتم ما حسوا به البيزار من الدكار ولا البيزار في جامعه نور شباحك نور شباحك طار الدهر ما طار كمل بزاني سوى داخل ناس اقرب سوى مينستر سوى وزير سوى شنتوى كمل بزاني قالوا لك ور الأود قد النفطة في الماء كمل أود ما يتقال لك bant lu mu yàgg yàgg ci ndox du soppaliku jën bant rek lay doon loo doon ñu ne la naar bi kon fexeel doon ki doon balaa ñu la koy wax li nga doon nag soo ko bañee dafa fekk nga gën cee ñaaw nañu fonk suñu li ñu doon nañu fonk suñu aada li ñu fi wane tey li ñu fi wane tey bu dee fecc bi lenn lu nekk am na lu muy symboliser góoru naa du solee grand boubam takk ndiggam ma ngay wane njàmbaar ndax ndigg balaa muy dem ci bopp ci digg kaala balaa muy dem ci bopp ci digg la jëkke kon liggéey lay wane liggéey lay wane fu mu yëkkati fetalam ma ngay fecc ndax daf koy foyee am na ñoo xam ne fu ñu gisee fetal daw naar piir fetal lay foyee. bàq yu jigéen yi. suñu jigéen ñi ku leen xool doo leen wax muuru leen ndax suñu cosaan mooy lan mooy dañ ñoo yar ci kersa yar nu ci maandu yar nu ci sol lu jekk yar nu ci sol lu yiw moo tax foo seen jigéen ñi mu sol foo seen jigéenu naar mu sol malfa muuru na ba daj dara ci cëram du feeñ loolu la lislaam jàngale loolu la yonent bi jàngale foo fekk naar ma ngay zikkar laa ilaha illallah laa ilaha illallah ndax lan bàyyi xel bu mu bàyyi xel yàlla jigéen ñi doon woy léegi taasu wuñu ndaw rabbiñu yeneen ci bi leen doon woy sallallahu alayhi wa sallam moom lañ doon woy moo tax ku nekk mën na ko fekkee ku nekk mën na ko sees màggatum naar lu mu mag mag su ko neexee dukkat ndax la muy def yàlla daf ko gërëm innaha misiyatun yuhibbuha allah loolu la yeneen ci bi waxoon kon li duuf ci cin li li duuf ci nag li xajul ci cin li dañ koy lebbe beneen waaye gërëm nañu ñëpp sant nañu ñëpp gis nañu ñëpp ñu ngi xamal ñëpp ni politique taxu noo jóg doon ay taalibe benn sëriñ taxu noo jóg ndax ku nekk am nga parti boo ku nekk am nga sëriñ boo tànn waaye dañu ni na naar yi daje suppali seen cosaan ndax cosaan dafa bokk ci nit te nit bu ñàkkee cosaanam ñàkk valeuram nañu booloo nekk benn di waxtaan di yëkkateendoo di dóorandoo bu benn naar amee soxla na na doon soxla naar yëpp bu benn naar amee métit na doon métitu naar yëpp te lii l'islam moo ko jàngale lii yenent bi moo ko jàngale kon gudd gàtt mooy ñun naar yi pare nañu nekk nañu benn te nekk gàdd ga te nekk wulaatu mbaara te nekk rumbaatu te nekk njorno te nekk kër abdalla nekk nañu benn say te kenn du leen xar ñaar

moo tax dafa wax délégué comité conseil municipal bépp ñu and ñew le maire honoré Babacar Diop dafa waroon ñew mais dafa am empêchement waaye ñoom ñi ñëw di leen nuyu si turu Amadou Bekay Diop kontaan lool nag ci association bi waaye comme ni ngeen wax da ngeen bu ngeen xamee Ross Béthio gàdd bu baax a baax da ngeen xam ne culture meur mësul des ginnaaw ci Ross Béthio buñ ko mënoon dellatoo ba ay des années soixante dix soixante onze da ngay gis ni ñi ko saytu woon dara manqué ci woon ñun ñi fi nekk woon xale yëpp gàtt ga la ñu sawar woon di fooy ndax soirée naar yi dafa daan neex tubarkal tubarkal la. lii nag bu leen ko sosee jëmale euh, ak développement da xam leen ni yéen a ngi ci digg loxol maire bi maire bi dañ leen saytu taxawu leen jàppale leen ndaxte képp kuy wax culture. Euh, mairie bi ngay jàppale képp kuy wax développement mairie bi ngay jàppale ndax ku doon développement yokkute la ku mu doon sa euh, sago sa njaboot am ak yokkute donc lii kontaan nañ ci lool di leen ci gërëm di leen san ci turu conseil municipal bi di leen ko jox ci turu Amadou Beka Diop mi nga xam ni bu doon sagoom moom mooy taxaw taxawa taxawaay bi conseil bi jigéen a ngi fi conseil bu góor a ngi fi ngeen xam rek ni ni ko euh, camarades yi demandé pour ñu saytu lee fekk na ko suñu xel bu yàgg lii yàlla def na xamante na xam xam nañu garde gi xam nañ leen mu yàgg xam nañ ne ay jàmbaar lañ comme ni ñu ko waxee euh, nit ñu fonk culture la nit ñu fonk aada la donc euh, li ñu def nu may gëral leen ni mairie bi taxaw na pour jàppale leen ci nu ngeen ko bëggee ak fu ngeen ko jëmee incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah Thank Ben de. Ben de. Ben de.